Anyways.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 bu leen xamal ni am na ab ngandi trafic de drogue bu am ci Almadi ci noonu la élément sûreté urbaine bu commissariat central bu Dakar dal di exploiter information bi naka noonu la élément commissaire Bara Sangara yi dal di këppatal gaa yi wër leen ndomba ci bërëb biñ leen indiqué loolu nag mu ngi xew ci guddi dimanche ñaari fanu mai bi weesu way takk der yi bi ñu caytoo bërëb bi fekk nañ fa ñetti kilogramme yamba ak genn wàll <laughs> buuxee ci footballeur boobu ak fecckat bi ma ne bari na ci milieu yooyu nag Camara ak Esmane di ñaari trafiquant de drogue yi gannaaw leen dee enquêté nangu nañ ne ñoom ñaar ay jaaykatu yàmba lañ ëskëy te nag nee nañu drogue boobu ñu ko doon jëlee ca Bignona indi ko ca Almadi di ko fa jaayee leer nag mooy yàgg nañ ko def léegi nag kay laaj bi nag mooy drogue boobu footballeur bi ak fecckat bi doon jëlee ca Bignona jaar ci yoon yi ba egsi ci Ndakaaru njaay <laughs> waaw fu mu doon jaar waay te nag ma ne yoon bi amul kaaraange guy caytu te it drogue bi naawewul Bignona ne cëpp ca Almadi eh, réew mi de contrôle ak corruption bi lu ne mën na fee jaar dem moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca daara jolof doy na waar ab waay lañ fa jàpp ci wàllum usurpation de fonction wolof di ko wax mbubboo méccam jàmbur hopp law ma ne sa waay da doon mbubboo ne gendarme la di roppati xaalisu sofor sek jaaykatu marché yi réew mi amul xaalis nag moo tax pexe bu ne dinañ ko def waa ji nee nañ bu xëyaan ak tuba yu tréem di gaare oto yi ak di sëkkatal éleveurs yi nekk ca marché hebdomadaire yi di leen laaj xaalis sawaay bu la laajee xaalis ngay tendeefal mu menacé la ne da lay yóbbu waay waay yomb na bu ko defee comme sénégalais yi dañoo ragal yoon ak ragal baagante yoon dañuy obligé jox waa ji xaalis sawaay dëkkee koo def nag naka noonu lañu informé élément commandant Mamadou Looyi nekk ca brigade ba ca daara commencé di teru foo gendarme bi di ko teru ba nekkoon niip jàpp waaw waaw ba fi mu ne nii waa ji defeere nañ ko ca parquet bu Louga ci wàllum usurpation de fonction wolof di ko wax mbubboo méccem njàmbur waaw góore waay réew mi nag yu ni mel mu koy bëgg a taas njaay nga dégg foo médecin foo sëriñ foo policier foo gendarme foo Marème Faye Sall sax ak ay foo Macky Sall moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca caajaay doy na war ab ancien maire la ñu teg loxo ci wàllum càcc xëppatalëg sawaay mu ngi wuyoo ci turu ajo di ancien maire bu caajaay ajuma bi weesu lañ ko teg loxo ba placé ko mandat de dépôt ci wàllum association de malfaiteurs ak faux et usage de faux en écriture publique hmm, woy ancien maire boobu nag li mu doon def mooy da doon sàcc ay carte d'identité bi ci jaay ay terrain xawlo way te nee yi mu ngi ko doon sàccee ci mairie bi ko defee nag ci la doon mbuxum ak ay complice di ci jaay ay terrain ma jaare fa nag ne lii xew ci maire yi ëpp na ma ne maire yu bari buñ leen caytu woon yuuxu dina jëp fuñ ko foogewul la wax moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw corona laa wax étudiant bi nag li mu doon def romb na doy war ndax am numéro jigéen bu am jëkkër la jël ci émission bi ñu naan quartier général tëkkee arsele ndaw si waay waay waay ndaw si mu ngi wuyoo ci turu aafay am jëkkër boole ci dëkk ca Tuuba ndaamaatu étudiant bi ci page Facebook bu quartier général la jëlee numérom di ko ci envoyé ay vidéo porno yu bon tëkkee ko arsele ëskëy ndaw si nag artu na ko ay yooni yoon waaye moo tëdd ci naaj bi dëkke ko envoyé ay vidéo di ko harcelé ci noonu la afay demee ci yoon dal di def plainte contre Rix ci la mujjee tendre waa ji piège ko di waxtaan ak moom ba mu jàpp confiance mu jox ko rendez ci am milieu nekkee boobu mag woy takk der yi ñoo teg plan étudiant bi nag bi mu ñëwee ci milieu bi yaakaar ne tey affaire am baax na am na proam dal ci la ko woy takk der yi neen ni dal di koy teg loxo yóbbu ko ca tribunal bu grande ga waaw góore waay man dama xamul ñi dañoo feebar xaw ma lu leen dal man lii xaw ma feebar bu bees la ci réew ay nit yoo xam ne ci internet bi la ñuy nekk ak ci réseau sociaux yi di wër numéro yu jigéen ñi te kuñ ci am sa numéro kat nii lañ lay def dëkkee laa arsale lii jàngoro ju bees la de man daal gig ñàkk jom xaw ma fu mu am mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz